mbokki taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne ci lañ yendu muy bis bi nga xam ne yàlla ci ay dogalam dogal na gënal ko ci mbooleem bis yi muy bisu àjjuma ñu daje yi ci ci tam nekk ci li gën ci lu dul moom muy alxuraan ak xasida ca nekkal ci Sëriñ Tuubaa kon ñu ngi leen ciy ndokkeel lu baax a baax di leen jéggulu itam ci ànd gi nga xam ne waroon nañ koo ànd ak yéen liggéey bi ca suba ba léegi te yàlla dogal ñu amoon ngant ngir sunu kilifa gu fi bàyyikoo ko dellu ci boromam ca muy fële ca gébb Fall dëkkub maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina fa la ñu yendu mm, ñu ngi leen di jottali nuyoo dëkk ba ak barab yu tedd ya fa nekk yépp loolu moo ñu gàllankooroon ba tax ñu guddee egsi waaye nag taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci bis bi dara umpuñu ci ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te di leen ci sant te di leen ci gërëm tey ñaan sun borom may leen ay at yu bari yoo xam ne at mu jot ngeen di ko gën a jekku ceen ànd koog yéen ci darajee borom Tuubaa eh, jëmm ji nga xam ne moom la ñuy defal liggéey bii nag muy soxna Aysatu bintu Cheikh Al Xadim Euh, moom ku yomb xamle la ndax ci njabootu borom Tuubaa la bokk buñ la laajee kan mooy soxna Astu Gaawaan neel soxna Astu Gaawaan mooy taawu xaadimu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam euh, xam nañ ne soxna Faatija Mbàkke moom la sëriñ bi njëkk a gis waaye xam leen ne soxna Faatija mooy taawu Cheikh Ahmadou Bamba soxna ja mooy taawu Cheikh Ahmadou ba ma nga gane jamono mbakk Kajoor sëriñ Mor Anta moo ko wutal aw tur waaye soxna su gaawaan mii nag mooy taawu xaadimu rasul sallallahu taala alayhi wa ndax xam ngeen ne alamani rahmaanu fi safina bi ànd na ni xadimu sil madina kon foofee la tudd xaadimu rasul gannaaw bi ko yontu sala salaam sàkkoo ci waramam ngir mu doon mu doon moom di ko liggéeyal bi mu liggéeylee yonent bi alayhi salaatu ba dellusi si ki mu njëkk a gis muy ak payam mooy xaadimu rasul mooy soxna astu gaawaan soxna astu gaawaan ak xasida gi ñuy wax mën nanu baaxil xadim ay seex lañu soxna day jëmm ci zaahir di wax ak a def mën nanu baaxil xadim di ak xasida tey jëmm ci baatin waaye soxna astu gaawaan mooy minan mi nan mooy soxna su gaawaan ndax mooy payuk sëñ Tuubaa ci liggéey bi mu doon liggéey yonent bi aleyhi salaatu wa salaam euh, su gaawaan moom yi nag moom lañu yàlla taw féexale ñun ahloo xasiida muy sunu péete ci njabootu borom Tuubaa euh, li gën a dal sama xel mooy Cheikh Abdoul Khadir mii ma dendal bi muy waaj a jàng daf ma ne sama xel dafa nekk ci ñetti fas yi muy jazbu ak mawaaxibu ak muxaddamaatul amdaax sëriñ Tuubaa moo leen tudde woon sama ñetti fas yi takkal nañ ko ab néeg ci njaareem ba néeg bi noppi mu ñëw néeg bi mel ni mu ko bëgge woon mu ne xanaa dawal fi sama ñetti fas yi rek moo ci des nañ ko ci def mag ngi jaaxle lool ndax ab néeg nuñ ciy dawalee ay fas waaye bi ma Cheikh Massamba egsee nga xam ne moom daa dégg borom Touba agsi daal na ku baax ki lu mu wax ñu ne moom day néeg bi noppi na waaye daa wax lu ñu jaaxal dellu ci biir ñu ne mu ne lu mu wax ñu ne dana néeg bi noppi na xanaa li ci des mooy dawal fi sama ñetti fas yi sëñ Masamba ne léegi daal di jël kaale gi takk ci ndig yi daal di sukk mag ñi wër ko mu ne alhamdulil mu mubin mu jeex mu teg ci ba waaye mu teg mu jeex mu teg ci mu muxaddimatul am daa sëriñ bi génn daal di ne bismillah daloo néeg ba kon wér yi sëriñ bi sëriñ bi daana wax ne ku leen warte wàccewu ma fu ma ne ëllëg maag rasulullahi sallallahu alayhi wasallam da nu fa fekk mu ne ma tànnal ma ci ma ne ko bocc sam xel nekk mu ne ma mawaaxe bu ma ne ko jàng ko ndax moom borom tubaab moo ko digaloon soxna su gaawaan bis bii ñuy def tey sëriñ bi moo woo soxna su gaawaan ne ko tey la lan mu ne ko ñaar fukki fer ak juróom ci weeru diggi mu ne ko mooy sa bis fu mu la fekkete ci kaw suuf na nga ko màggal keroog soxna su gaawaan juróom-ñaari mooy bu la ko tàmbalee mook njabootam gi nga xam ne ñoom la ko sëñ Tuubaa boole woon ndax sëñ dafa sosoon daayira xasida ci biir kër gu mag ay doomi boppam ak ay soxnaam ñoo ko seqoon soxna su gaawaan moo ko doon jiite waajuru sëriñ Saaliwu moo doon jiite njàng mi soxna Faat Jaxate ak waajuru soxna sëñ mustafaa May muy soxna Aminta Amar yàlla da mayoon ñu am baat yu neex lool te dégg daaj lool nga xam ne soxna Aminta Amar mi fi mujj Serigne Saliou daana ko jël li indi ko muy jàngal dongoy ay daaj ngir dégg gum dégg daaj léeg-léeg sax ma dégg ñoo xam ne dañuy sukkandiku ci sukkandiku ci téere yi bëgg tere jigéen ñi xaside yi ce loolu njumte la ndax xam ngeen ne jamono dem na bu firi ko ndax ren de xanaa moom kenn nattabletu ko ndax am na gone gu jigéen goo xam ne gañe na ab concours ci alxuraan ku baax ku ne yóbbu nañ ko fa moom mu jàng alxuraan fi moom ñu déglu ko te kenn ne kenn araamalu ko ndax dafa daggan ci alxuraan ci araam ci xasida te bu jigéen yëkkatoon xasida rek kenn ku ne jóg di fitas naa araam tàmbalee xoli bët te sëriñ bi lu mu def noonu la sëriñ Tuubaa lu mu def noonu daana wax ne Cheikh Rafal li tax mu raw ñëpp mooy fa ma yàlla teg dama faa teg ndax moom di egg na sama digg ak moom foo xam ne su demoon ba fekk may def lu ndax lu yàlla tere day jàpp ne yàlla mi ko tere woon moo juum waaye man Ahmadu lu ma def noonu la feeg eggaguñu foofu suñu digg ak sëriñ bi demunu fenn sëriñ bi moom lu mu def noonu la léegi rek maa ngi koy wax ci biir oto bi kuy seet yoonu murit ci biir lislaam dangay réer xam nga nu ñuy def lislaam ngay seet ci biir yoonu murit yoonu murit moo xajoo lislaam lislaam mi ngi ci biir yoonu murit li leen bëgg a wax mooy daa am yu dikkutoon ndax ku ko attanu fi newul woon bi ko ko attan ñëwee ñu indi ko waaye ci la dañ ko xamee noonu ci la bokk de léegi rek maa ngi koy wax sama njaboot gi ma àndal ne lii firndey yoonu murit ni mu tiime diine ak morit daa tiim diine firnde ji mooy li diine maye ak murit da koy bañ diine may na la nga sol kiloot boo xam ne weesu na say oom sol bi seulement julli farata julli ko wér waaye murit ak murit nanguwu ko benn murit du sol kiloot ju ees say oom akub selet ba dem daayira di jàng mooy bu waa jës bu bàyyi laat bu jot ngay sol teg ci kaala soo ko mën a jàng xasida yi waaw noonu la ak murit tiime diine soxna su gaawaan nag mooy sunu cër ñun ahlu xasida mooy bii nu doon jàngit du lu ñu tànn lu la ndax sëriñ bi bi muy tegale xasida yi dafa wax ne képp góor góorgóorlu ci yéen ba mokkal jësbul xulóob na xam ne maay baayam booba doomi kilifa yi ñu ko joxoon mu di leen soññ ci xaside yi tàmbale ci Cheikh Modou Moustapha muy doomam sëñ Mortala Fall moom Cheikh Ibra sëñ Baara Jenn moom Cheikh saa Jenn sëñ Modou Awa Balla moom Cerno Ibra Faati ba mag ñi daj ñooñu la sëriñ bi dajale ne leen ku ne muy laaj lu koy sa baay nga wax ko mun leen ku bëgg may sa baay ñëpp na ko noonu mbàkke mu ne ku ci góorgóorlu ba mokkal jës bul xuloob may sa baay daal dina tekk ba mu mu ne ku ci góorgóorlu ba mokkal ma waaye bu naafi may sa ndey waaye ku ci fexe ba mokkal mu xaddamaatul amda may sa jëmm li ma bëgg indi rek mooy xaside gii sëñ Abdou Khadir doon jàng fi mu taxawee sëriñ bi dane ku ci góor góorgóorlu ba mokkal ma bu may sa ndey soxna su gaawoon xëy déclaré ne képp kuy jàng xasida maay sa ndey Aïchatu mu njëkk mooy umul muminina man Aïchatu mooy umul muridina kon wér na ne moo waay bu naafi yi mooy soxna su gaawaan te Sëriñ Tuubaa ku digaloon ca njaareem digaloon nun ñii digaloon nanu nu ngi koy fàttali ñëpp te di leen boole ci biir digal googu yi képp ku aju ci moom ngoonuk alxames gu ne na nga jàng juróom ñaari mooy bu def ko addee soxna jaaram loolu soxna Sugaan moo nu ko digaloon noo ngi koy digalaat ñëpp. ngoonu alxames gu ne juróom-ñaari mooy bu def ko àddee soxna jaara sëñ Tuubaa ko digaloon ne ko dama talatul dara lu dul yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te bëgguma sama am soxna bu sa fee mu nekk ca barsàq muy wax ne bu fa sama faati mbàkke ba nekkoon dina ma toppatoo kon yéen ñi ma yàlla booleel ngeen di sama njaboot gu jigéen yéen laa bëgg ngeen féete ma ci seen maam Aysatu jox naa la liggéey boobu fa la tàmbale woon di jàng juróom-ñaari mooy bu takkusaan mook njaboot googu ma leen wax di ko def addiyee soxna si ba digal nu ko booluñ ci biir liggéey boobu digalaat nañ leen ko yor yoru alxames altine bu ne juróom-ñetti sindiit yi loolu ndigalal soxna su gaawaan la juróom-ñaari mooy bu mu yooyu nag moo gën junni mooy bu yoo jàng ca du ndigalam juróom-ñetti sindiitam yooyu moo moo gën junni sindiit yoo jàng ca du ndigalam kon ñoo ngi leen koy delluwaat di leen ko soññi naa Naafi day xasida goo xam ne Cheikh Rafal Baabul Muridina daa wax ne sëriñ bi daa liggéey ak boromam ba boromam may ko xasida am gu mu bind jëme ko ci yonent alayhi salaam bu noppee suñ borom def ca téeméeri junni yonent yi ak ñaar fukki junni yonent ak ñeent seen daraja Cheikh Rafal ma nee na ma xam ne loolu diis na ci dënnu murid yi nee na xasida gu sëñ Bàmba bind bu te suñ borom defee téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent seen daraja ma wàññi ko ba mu des ñaar fukki yonent yi ak juróom yi alxuraan tudd la ca des mat ci sama dënn bi laa koy denc loolu moo waraloon dënnub Cheikh Rafaal bi daan ko daaneel mbootum xasida yi mi mu ci denc moo waraloon dënn bi daan ko daaneel waaye nee nag moo na naa Naafi bi ci sëriñ bi noppee ba suñ borom def ci tàmpe bi nee na laata moo yegg si ci man fekk na tàmpe bi wow na ñu ne ko fu mu newoon ba yegg ba ba yeex a yegg si ci yow mu ne mu yi muqarrabiin yi ñoo ko doon awante kenn ku ne ne sa morom dama koy mokkal mu soog a na awante gi ko doon awante nag yàgg gi yàgg ci seen loxo moo tax mu wow ci mooy moom noonu mu tolloon ne lu toll wàññiwuma ci dara kon dang ciy dégg ne waaye bi moom xasida la ko bari ci biir xasida yi. jafe-jafe jamono. ba sonal ci maam Thierno maam ko xanaa xamoo mooy bu mu ne ko ah kay Mbàkke xam naa ko mu ne ko loo ñàkk yaa ko xañ sa bopp ku xam mooy ba noppi di jàmbatu ñàkk lu la dal yaa sa bopp kon mooy ba ngi noonu ñoo ngi leen ciy soññiwaat bu baax a baax képp ku taxoog moom say say teraanga ñoo lay wut si waaye doo leen dootoo leen wëri moo way bu naafee moo gën a gaaw lu ngeen mën a dégg maanaam yëmut ak benn xasida ci wàllu xéwal moom mooyewu bokk na ci njariñal bu kenn ci mag ñi dafa bàyyi ko dafa wàcc ab liggéey bàyyi fi njaboot gu sew te ñi ci ëpp ay jigéen góor ñi ñaar lañu kenn ki daanaka daa toll ci dalagul jàng kenn ki di soog a fer mooy ay caatam ñi mag ñëpp ay jigéen lañu muy soxna su amum xel bi mu liggéeyee ab liggéeyam ba liggéey bi yegg mu dem ci ku baax ki ne ko leen rek mu indi mooy diw moo ma yoroon liggéeyal naa ko ba liggéey bi noppi na waaye dafay bàyyi njaboot gi sew te nji ay jigéen te jigéen mënta yar moroom ja ma bëggoon nga dimbale ma ci ba lim bëggoon ci njaboot gi nga defal ma ko ci mooy njaboot gi jub ca ko ci siraatul mustaqim sëriñ Tuubaa Mawaahibu Naafi la ko jox képp kuy jàng bu Naafi jarul ngay jéem a lijjanti sa njaboot sëriñ sunu boroom moo lay yaral sa njaboot ni nga bëgg ñu mel ni danañ mel nu ko raw kuy jàng moo ay bu sa njaboot danañ jub danañ yaru danañ yiw danañ am xam-xam te it dañuy bu dee ay jigéen dañuy rafet bu dee ay góor dañuy am xorom kon moo bu naafi yi li tax soxna si tànnal na ko sëñ Abdou Xaadir jàng ko njariñ yu bari la daana wax ne képp ko dox sama digg ak naaj wi ma dox sa digg ak naaj wi moom mooy wu xasida la koo xam ne daal li ci nekk ci ay xéewale ki teraanga kenn mën la ko wax sëriñ bi bi mu koy liggéey daa fekk boobu noon yi def ci moom pexe yu ne ngir jële ci bakkanam te bëgguñoo tuumaal seen bopp ci ci nañoo ko fi jële def ay pexe ba mu jóge fi rek pexe muñ def pexe ba du sotti ba mujj ñu gas am yeer wutal ko bunt teg ca lu mel ne aw sàkket lal ca darab sëriñ bi ne ko sab jullikaay a gee sëriñ bi bi mu taxawee ci kaw di bëgg kàbbar rek bi tànkum càmmoñ bi fekk sa tànkub ndeyjoor bi la pëtax dugg ci biir fekk kuule war nañ lu mel ni kubéer dafa mel ni foos yi xew léegi moom lañ defaroon ñu daal di jël kubéer ga teg ko ca daal di cay sotti ay suuf marmaral ko jamono boobu lañ bindoon ab leetar yónnee ko fii ci réew mi wax na sëriñ bi bàyyi na fi ba ñépp mag ñépp jaaxle jàpp ne sëñ Tuubaa dafay bàyyikoo koo maam Thierno tàng jër ñuy dugg ak génn rek soxna Faati Isa Jóob waajuru maam na moo woo maam Thierno na ko ceer Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko lu xew. boobu ba tey yéen a di ko ko génn rek ci gis naa ngi seen kanam yi soppi ko na mu ne ko ah soxna si loolu du mbiram jigéen mu ne ko ah jigéen ji mën naa dégglu de wax ma la xew maam Thierno ko ah ba neexul de waaye nasaraan ñoo fi indi ab ab ab bataaxel wax ne sunu borom dafa wàcc ab dogalam ci ku tedd soxna si ree na ko ah dafa tiit ba sukk nga ni mu ne ko waxuñu dëgg de mu ne ko soxna loo ci def takk mu ne ko damaa wéradi woon wéradi koo xam ne ñëpp yaakaar nañ ci lay wàcc liggéey keroog ba mu may ñaanal def ma ne na xel dal yow wàcce goo liggéey ndax man maa lay def ci bàmmeel te jubloo ko ma ci yow te maa ngi nii ca xam naa lu mu wax loolay am man wóor na ma ne bis bu may faatu fi la koy fekk ci moom may dugal ci bàmmeel kon loolu nasaraan yi wax du dëgg la Ahmadou Bamba wax mooy dëkk maam Cheikh ba mu ko yëgee def ne Thierno bindal ma ab lettre mu bind ab lettre mu suul lettre ba diir bu gàtt mu mu jam loxoom ci suuf génn waat ab lettre jox maam Thierno. maam Thierno jàng lettre ba sëriñ bi xamal na ko damay liggéeyal sama borom léegi ba dellu si fekk booba am na ñett mag ñett kilifa yi sant Mbàkke yoo xam ne bokki sëñ bi lañu bañ ko déggee dañ doon ree di tàppante sëñ Tuubaa dafa bind seen tur ñoom ñett ñooñee xonqal seeni i tur wax ne ko Thierno neel diw ak diw ak diw nañ ma ba seen morom. kon mooy bu naa fii barab boobee sëriñ bi newoon ba tax ñu jàpp ne wàcc na liggéey muy ci biir xunti moomee ci biir yeer moomee fa ñëw wax ko ñoom sëñ Mayib Guèye ñu daal di wër mu jàng ko bañ julee gee ba sëlmal rek ñu daal di yëkkati mooy bu sëriñ bi daa bëgg teraanga ju dem defal leen fu ngeen déggee daaj boobu ñu ne ko ci tàkkusaan lañ dégg mag mu koy jàng ci tóokóor bi <laughs> waaw daaj boobu waa Hizbut Tarqiyyah jàng nañ ko daw jàngin wu neex mhm. shifa suduri li awduri badrul buduri badi diyaayi shifa suduri li awduri badrul buduri badi diyaayi shifa suduri li awduri بدر البدور بعد دياي داج بوبي نين خامني اجنا لا جوغي اجنا لشن كفوري نافي نفوري مغدي الغلاي جنات وادي نيران وادي فالبل بالي لأقلاي ماي الخطايا بدي الخطايا أهل البرايا بلا هلاي لو براء لو صفاء لو جماء هيد خاي إرام إلمن أورام إلمن أورام إلمن باقي بخاي فذاك يولا وذاك يولا لو يولا ذا بسقاي مراد مجير نور waaw mënut a euh, loolu na ngeen yëg ne daa bokk ci li sëñ Touba jële àjjan andil ñu ko fii waaye bokkut fii bokkut fii ku ko dégg yaa ngi dégg ñamu àjjana te ku bëggatu dégg loolu yi bul dem àjjana Sëriñ Tuubaa moo ko wax ca tarjumaan ji maanaam jigéenu warul ay moom la ñuy jàng ci njàngin woowu yi ndaw ña nekk biir àjjana nga xam ne teraanga ju waaye tedde ci seen loxo lay jaar moom la ñuy jàng biir àjjana ku mu neexut jarut ngay dem àjjana ndax dafa dana fa sàppee euh, kon maway bu naafi mi ngi noonu yi maway bu naafi daal moom mooy kilifa gu mag gi waaye nag na ngeen xam ne mooy soxna Astu Gaawaan incha allah moom nag day yaam a neexi sëriñ Touba soxna Astu Gaawaan day yaama neexi Serigne Touba maanaam amul kem fi ne mbooleem xalifa yi Serigne Touba yi xam nañ ne ci Serigne Abdou Lahad la ñuy delluwaat Serigne Saliou daana wax ne. sëñ Abdou xamoon nañ ne nii mu mel rek lay mel ndax sàllaaw bi ñuy doon ay ndaw sëñ Modou Moustapha dafa doon ku xam sëñ Touba ba lu mu daan def mbooleem ñun njabootug sëñ Touba gi dañuy woo li ñuy doon doon ay gone kenn du ko wuute mu wax li mu xalaat lépp ba na buñ ne nee nangam ci sëriñ bi sew fiit rëcc te buñ ko waxee feneen nga nangu ko loolu liggéeyu seytaane la xam ngeen ne salaatul faatiha bii ñuy jàng te suñu mbokki tijaan yi fonk ko lool te muy lu jara fonk nuzul la dafa wàcc ci palaatu urus la ko sun borom teg ñu andil ko muhammadul kurdi yu kenn taalifu ko kenn xalaatu ko suñu borom ko bind ñu teg ko ci palaatu urus indil ko muhammadul kurdi yu moom salaatul fatih gis naa fu Sëriñ Tuubaa bind wax ne wax na ne lu ñuy génn ci aw làmmiñ di ca yaakaar tuyaaba sëriñ Tuubaa ko wax ci Masalik wax laa ilaaha illallaah moo ko gën du wér na gis naa fu sëriñ Tuubaa bind wax ne soo waxee benn yoon salaatul faatihi mu ngi tolloo ku wax juróom-ñetti jun téeméeri junni laa ilaaha illallaah nit yor kurusam wax juróom-ñetti téeméeri junni laa ilaaha illallaah soo bëggee am tuyaaba ju toll ne moom waxal benn salaatul faatihi noonu la toll waaye ñëpp nangu nañ ne. loolu Mouhamadul yi wax wér na ñu ne la wakkaana aqan nuzul la nga ne murid dañuy daanu wakkaana aqan sëñ Tuubaa taalifu ko bind ko sëriñ Tuubaa ko ne kun mu nekk araf wu njëkk yu ak mujj wi ñoo sottee doo mi nanu baaxil xadim sëriñ Tuubaa mu ngi ko binde façon borom ku leen ne gànnaar la xamul téere bi gànnaar nag la sëñ bi jaare ndax bunt la ci buntu sëñ borom yi waaw waaye fa suñ borom la ko biddee waaw diftu lazi xiraayal yi ataaba waxaadali maa lam yoril foofee la ca ngan googee la suñ borom da ko woo gan mu gane ji ko fa mu doon gane suñ borom suñ borom di ko gane teraanga yam ko doon defal moom la sëñ Tuubaa doon résumé ci mi noonu bàyyil xaddim mooy pay jëmm ji nag mooy soxna su gaawaan ci seen laat nee na lu ma amul ci sëñ Tuubaa ku ko ñi ko ci am bëriwul te man Abdoulaat lu ma am ci sëñ tubaa maa ngi ko jëlee ci Minanu Baayil Xadim booba soxna su gaawaan lay junj soxna xëy na bis gane si sëñ Abdoulaat bi ko sëñ Abdoulaat séenee dafa daw gàttandu ko nuyu ko ànd ak moom bëgg koo te teg ko ci siis bi mu toogoon soxna su gaawaan toog sëñ Abdoulaat toog ci suuf tàmbale déyante ay taranga mu téye ko nag Abdoulaat gane si ba nga may taral damaa gis ta Pastef ak sa yitte ci liggéeyal sëñ Tuubaa ma xam ne bëgg nga koo liggéeyal ma ñëwoon di la dimbali si waaye bu ma la wanee ginnaaw di nga xam ne dimbalaa loo bëgg def di nga ko def kooku mooy Soxna Astou Gawane bokkul ci gaay yi euh, maanaam santaat leen yàlla waaw waaw waaw dafa ñëw si sëñ bi mu ñëwee bay dem di génn kër gi ne Sëñ Abdu topp ko tànk bu mu maam dox rek Sëñ tibb def ci maam mbubbam nee tànk bu mu tibb tànk mu yéego rek Sëñ Abdu tibb def ci mbubbam nee na loolu kër gu mu xewoon gu du kër Sëñ Tuubaa coow dana fa bëri ndax ndax dañaa kii da koy liggéey. Mm. sëñ Tall ni moom wax loolu ne ma sama su gaan jaar na fi ak seen blaat. Mm. jërëjëf Lo waaw wér na sana su gaawaan eh, day day ab murit yii ma wax yépp sax buñ ko tegoon nee waaye doon doon gim doon murit bokk ci un lu bokk ak ñun doxin rek dafa doy bëgg Cheikh Rafal lool daana wax ne njabootuk sëñ Tuubaa gi dañ ne maag sëñ Fallu ñoo ci gën a bëgg Cheikh Rafal waaye noo yey ndax am na barab boo xam ne fa la ñuy dalal yonent yi fa la yonent bii ne fa la ñuy dalal sëñ Tuubaa ak un lu xasida jataay boobee sëriñ Moustapha xasida nee na ma la ñuy terale jotaay bi mooy xasida gu sëñ waa mos a bind Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dinañ ko jàngal yonent bi ci kanamam waaye ku bokkuloon ci ñu koy jàng fii doo bokk ci ñu koy jàng foofee ak taalibe de baax na ndax ku toon taalibe mucc nga ci sawara am nga àjjana waaye doyut murit a gën nan fexe doon ay muri xam ngeen ne at mu jeex mu ne bu ñu demee 31 décembre jëm kaw kii fi nekk di borom réew mi ñu di ko wax président dana def ñaar yoo xam ne bokkuñ ci ci citoyen yi dana am lim bu bari boo xam ne dañ leen dencoon ci kaso yi day xëy na jéggal naa leen ñoom ñëpp ñu dem géej sangu ji dellu ci seen i bokk waaye dana am lim bu bari ci citoyen yoo xam ne da leen di woo fa këram ku ne mu takkalee garaat gërëmaat la ñoo ñu bokkuñu ay wàccuwaay ñee ay taalibe lañu waaye ñii ay murit lañu murit mooy ki tegu ci li sëñ Tuubaa bëgg ci da ko wàcc ca ku bëgg nekk ci loolu jàppal ci xasida yi waslu bi naa nax ja rushdin waaw ku ku bëgg jàppal ci xasida yi nañ tey ci xasida yi sëñ Tuubaa yi nag dégg nga ndax kenn ko ne la nga nekk yaa ngi koy duufal kon bu nu kenn tiital ba tax nu bàyyi li nu nekkoon bañ koo duufal nan ko duufal ndax moo duuf moom la yàlla duufal moom la Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom la sëñ bi duufal ndax sëñ bi raw na ñëpp kenn du seen pëndam moom sëñ Tuubaa lu ko tax a raw xasida yi sëñ Tuubaa li mu rawee mooy liggéeyal yonent bi salaam sëñ bi lu mu doon liggéeyal yonent bi xasida yi wa joxtu lil muxtaare kulla yawmi xidama am daahin ajala law mi lil Mustafa wa joxtu kulla lil xidama am daahin ajala nay li